de di remercier si déplacement bi ngeen def donc pour nous, en man si projet bi nga xam ne moom la amal de quoi def chaque année nous le grand bégué sénégalais yi xam ko de def si réew mi di def bitim réew def nañ ko Sénégal def nañ ko sous région bi def nañ ko États-Unis def nañ ko Europe donc ren nous ñu war ko def fii di Dakar Arena ci Diamniadio donc maa ngi leen di remercier ci seen déplacement. d'accord événement lan lañ ci xaar waaw bon événement bi liñ ci mëna xaar moy spectacle spectacle euh, fête là parce que ku ne Dakar Arena gis stade bi machallah ni mu mel ñu ci remercier le président de tous les Sénégalais monsieur Macky Sall nga xamanteni tay dafa ñew sanc gox bu mel ni Diamniadio dara amu fi won mu nekkoon all mu ñew xoti ko gëmloo Sénégalais que ni fi mën na nekk futuru Sénégal boo xamante ni tey euh, lu bari xaj nañ fi ba tay ñëpp ñi ngi riir di ñëw jam ñaajo kon tay buñu def defalee stade bu melni bijou bu melni pour man ñu daan dem ba Bercy ba France di dag ay billet d'avion di ànd ak ay mbolo di dem di fa jouer di bégal sunu fans yi je pense que ni tay am nañu Bercy ñun Sénégal. Mhm. kon je pense que ni tay bés bi euh ñi wara juk ñew woné wane bërëb bi. Pape Diouf am na ci part de responsabilité looloo waral ñun longue histoire Pape Diouf de Lemzo Diamano... aujourd'hui de Cocorico aujourd'hui de Cuucuuc partira jaral nga ma tey lu ma sénégalais la ñoo ma yàgg a porter seen xol bëgg ma di ma béggee ñi may béggee sax gisuma leen kon je pense que ni musique sénégalaise musique sénégalaise la nuit décalée, ci son ci lumière ci woy ci xam-xamu musique ci spectacle ci enjoy ci bége ci fête donc je pense que ni bés bobu ah man mom pare na. d'accord Pape un mois mo ci dess nak c'est bientôt 4 avril mën nañu xam actuellement bié fan la tollu ak yan matuwaay ngeen djel pour fan ce Pape Diouf yi war a ñëw fii ci Diamniadio. waaw bié yi sha allah sha Allah rabbi fan si ñi ngi jënd bié yi sunu parrains yi ñi ngi jënd bié yi jox seen gox sunu marraines yi ñi ngi jënd bié yi jox seen gox suma xarit yi suma am di jàmm yi biye yi moom alhamdulilahi rabil alamin et que nag loolu ñu promotion régionale promotion régionale yàgg nañ di ko def muy dem dem nañ fa donc président France club bu international Pape Diouf Demba War mi ngi taxaw depuis depuis lekkul naanu. gis ngeen ma ni ma jeexee. Mhm. Sénégal yi mais Pape Diouf da nga jeex ma mais bien sûr parce que nag man dama gëm liggéey te dama gëm défi man may nit ki nga xamanteni man ma dama gëm défi suma ma ci défi duma lek duma nan duma nelaw donc Bercy ni lañ ko liggéeyee won Demba maa ngi lay remercier bu baax ak tout le staff yene ci ngi liggéey bu am solo donc région yep ñu fay duggu liko dalé dalee wacc liko dalé saloum wacc beut ganar beut gànnaar bët saloum ñi ngi duggu fune parce que bés bi bésu Sénégal les étudiants les intellectuels ah, Fancy, melomani, Mbokoui, haridi, Amdi yi xarit yi am di jamm yi banlieue surtout à banlieue waa ndakaaru parcelle wuñu fenn jàmm gën mbaw Mbao euh, Lac Rose Yen, Rufisque ñaari tali disposition yu énorme honnêtement donc profitons ngi remercier le le le le directeur bu Dakar Dem dire, maître Moussa Diop bi ah, événement bi ces trois mois C'est ko pour signer ak un partenariat de transport vraiment comment nous transporter événement bu toll ni màggalu Touba. mettre ko dans de très bonnes conditions événement bu toll ni gàmmu nga mettre passager dans de très bonnes conditions ak yeneen i gàmm lu mel ni tey waa Kaolack bu ñu donc je pense que ni Dakar Dem y yore nañu logistique boo xam ne ku bëgg a ñëw dinañ la andi dinañ ko bolé ci sa billet ku bëgg ñibi aussi dinañ la xaar yóbbu la ci jamm té dara du ci am lu dul jàmm. Mhm. donc may remercier aussi le ministre de l'intérieur, monsieur Ali Ngouille Ndiaye ma recevoir fan yi pour sécurité routière bi. Mhm. di gërëm aussi sama xarit monsieur le ministre euh, di sama xarit nga xamanteni chaque fois lépp lu ma lu may def daf si jamm daf ci japp muy suñu ministre tutelle muy monsieur Ablaye Diop muy ministre de la culture war na recevoir aussi pour ñu tok waxtaan ci événement bi nan lan ko wara défé Omar Youm aussi nga xamante mom moom géré tout ce qui est sécurité routière mom aussi maa koy remercier bu baax war nañu toog ak kilifa yi nga xamante samay mag lañu ñi samay xarit lañu ku ci melni le ministre du sport monsieur matarba mom tay ji ubil nañu buntu yépp waye nak ki nga xamante moy DG wu SOGIP di monsieur Galoba Ba koy remercier bu baax parce que yombal nañu suñu dugg fi ci Arena man koy remercier monsieur le monsieur le directeur vraiment je te remercie infiniment pour wax len ni que rek en grosso modo jëmukaay jumtukaay yi ñu soxla yépp vraiment am nañ ko ñu ngi ciy liggéey parce que Sénégal lañu bëgg ñu contane Sénégal moñu ñor ay sénégalais lañu et que nak musique lañu am muy suñu culture. mais envergure envergure bi Bercy am lu ko a moy parce que filles on est chez nous donc fi on mat in Sénégal mbir mi fi la la la la mburu donc mais wa diaspora aussi dañ koy dund ak parce que fi moy suñu base donc fi moy suñu base li ñuy def parce que légui internet bi lepp live en direct mhm. d'accord eh. euh, Aujourd'hui, nous une partie de euh, l'organisation organisation arena mm. donc ko association l'association 5 avec 5000 membres dans cette collaboration gis nañ ne nañ te ji tamit ñu ngi man euh, histoire

léeg-léeg damay xat bi ñu déggee bés bi ñoom ñoo daw ñëw ne doo ñu gën a gore ndax dangaa woy askan te Sénégal gii buñ koy wax lawbe yi dañ cee bokk bu baax maalaw yi di nga xam ne gënoo ñu gore ñun lépp képp lépp loo xamante ni association des lawbe la bés boobu dañ lay wuy si ma leen di sant nag di leen gërëm bu baax a baax a baax di leen wax ni bés boobu te law bay jënd nañ 5000 tickets Sénégal ngeen dégg loolu maalaw yi jënd nañu mil tickets ci bés bi kon je pense que ni tey lenn daal laa ragal ku yéex a ñëw doo dugg de attention ndax bu law bay duggee moom ba ba ba ba jël kanamu seen bi. ba def seen ba def seen manin. ba def seen manin ba ba suur saal bi ñu xam ne lépp dëgg la. <laughs> dëkk bi dafa am feebar ba nga xamantene dal dina fi dugg te mu nekk attroupement bo xamantene ni di nit yi dinañ fi bëri ndax tay ji préparé ngeen dispositif yooyu disposition yoy ba nga xamantene di ngeen mëna a aar ñëpp. waaw xam nga ñun ay sénégalais lañu. et que euh, suñu réew dafa am euh, loi donc ñun dañuy tënku ci république euh, ay ndaw lañu nak projet lañu am d'abord ñi ngi ñaan ci katanu yalla yalla mi nga xamanteni lepp lu am mom la. ñi ngi koy ñaan ci katanam Euh, vraiment feebar boobu nga xam ne mi ngi lëmbe àdduna bi suñu borom musul ñu ci ñun waa Sénégal ak bépp mboole mu jullit ak képp koo xamante ni rek tey le monde entier parce que euh, musiba bu dalee du du yam li naan ay du yam ci bopp borom donc ñi ngi ñaan ci yàlla vraiment mu nekk loo xam ne lu lu lu ñuy gaaw a trouver vaccin bi la boobu ba léegi gis na ni que kilifa diine yi kilifa aada yi ñi ngi joxe ay ñaan et nag Sénégal loolu yàgg fii et je pense que ni tey ñun ay ndaw lañu donc ak sunu monsieur le ministre ablaye Diouf sar genn demb def déclaration bu am solo ne pas de panique and leen ak dal ñu nit ñi ngi nekk ci sunu liguey di def di continuer sunu promotion parce que on a dépensé beaucoup d'argent waye nak ñun dañu tënku ci république fi may wax ak yeen ni point de presse bi may wax ni suma ci paré woon seconde qui suit ñu ne bépp manifestation bo xamanteni day plus de tant de personnes interdire on va annuler jusqu'à nouvel ordre parce que ñun ay sénégalais lañu ay doomu lañu dafa am kilifa gu doon wax am solo Soko amé am nga solo soko amul solo ku parce que pour sénégalais lañ lepp lo day andi sénégalais loolu duñ ko def mais ñi ngi nekk ci suñu logique liguey suñu logique communication mais bu ndigal jibe que ni dañu wara arrêter rek dañu wara annuler dañuy annuler jusqu'à nouvel ordre incha mhm. gis nañu temps yi ciowal bi xew ci internet yi moy sac à main femme bi nga xam gaddu won nga ko sénégalais yépp di ci ciow Wally Seck yoroon na ko mu indi won buzz pap ñew defat la même chose pap da doon wut buzz wala lan moko ci duggal wa yooyu mom c'est des détails wax deug yalla bëgguma ci commenter actuellement j'ai d'autres préoccupations que détail yooyu daf ñuy tardeel euh, Pape euh, fii nga xamante ne Dakar Arena mm. nekkul grand théâtre nekkul place de l'obélisque nekkul feneen ak feneen fi nga xam ne tàmm nañ tëgg ndax yaakaar nga ne défi boobu tey jii euh, di ko di ko assuré di assuré fii yëpp fees waaw mais man maay l'homme des grands défis noonu la ma yàlla bindee xam nga àdduna moom lépp yàlla sunu borom la te nag yàlla moo ne dee ma ñaan ma di leen may kon maa ngi ñaan yàlla mi nga xamante ni moo ma daan may mu may ma fii ñu am ci ndam jaar fam daan jaar ak ñun rek waaye nag je pense que ni yow sax si nga bokk parce que Sénégal xewle 4 avril la fête de l'indépendance wala doo Sénégalais. <laughs> alors yow yaa ngi si biir. d'accord est-ce que lan lañ mën a xaar exactement comme spectacle venant de toi ci salle bu rëy bi. mais soxna si xam nga ñun moom ne léeg pas wax sax duma koy mën di def man la ma yalla bindé. man déjà duma ma répéter, musicien rarement la répéter. parce que tout le temps limay mains def rek limay sentir lay euh, le jour J si bu nu yalla lay ci sénégalais dinañ gis luñu wax musique man musuma len wax luma deful ci musique sumay dugg studio dama len nan dina def dina génne lo xam bu génnee ñëpp ne gongo waye nak sumay may bes bés képp ku ñew di nga déggloo musta dégg waaw maa lax loolu incha allah waaw mais jël ko ni mu gën ñu généraliser ko quoi parce que ñu temps ni ñu dóor ko mu daanu bu ko défé ñepp jëlalé ko ah depuis nga may ci gaay ah bu ñaabi <laughs>

yéen ay biddéew ngeen dañ leen war di nebb nebbal di leen bégal di leen woyal di leen feccal di leen reetaanal di leen jox xaalis bari ngeen di kontaan di nu ñaanal donc jigéen yéen yéenay sunuy yaay yéen yéenay sunuy jabar yéen yéenay sunuy or yéenay sunuy jamaa de gisoo sax man moo tax ma taamu leen ne bu ma benn góor tiim ak ay micro na jigéen ñi ñëw na jigéen ñi ñëw Darma. vous les femmes je vous aime I love you. lan ngay tëjee. li may tëjee rek mooy lëkkaat bu jeexee rek jeex na. merci beaucoup Pape. te boo xaayee ndax Pape pare na.